que soit boor bu mu jóge munuñu jël li ñu ubbi ay tiroir ah dugal ko fa ne teg comme si dara musul am mhm. man loolu moom c'est-à-dire que on ne parle plus des des faits xam nga waaye mu ngi si loxo justice et tout ça mais li mbir li indi li li lii indi li indi lii il faut ñu taxaw si aussi ñu xoolante si bët ñu ne on ne pas jël affaire bi ranger ko il faut que affaire bi mu wax naa ko fi la dernière fois waxaat naa ko il faut mu leer mm. parce que bu leeree ñi ñi tëdd dee noonu treize nit ñooñu ñu leen di ñaanal ak yëpp mais balaa ñuy tàlli li indi lii il faut effectivement ñu ñu dem ci loolu mais dafa mel ni dañu jékki-jékki loolu fàtte nañ ko teg nañ ko ne on veut tellement la paix que situer responsabilité yi personne personnes si ay milliards yàqu si nit ñi jël ci ay risques yu métteeg tout sax mais munuñu jékki-jékki ñu ñu fu affaire bi jëm il faut ñu taxaw aussi ñu te dëgg histoire bi jeexul jàmm ñëw na mais il faut que ñu wax ñu ñun sénégalais yi lan moo indi lii kan moo yore responsabilité bi xam nga tey jii man man damay wax ni su ma xoolee suñu gendarmerie ak suñu police ni ñu ni ñu xarañee boo gisee ay terrorisme yi dugg ci yeneen dëkk yi su région yeeg yooyu yëpp am na ay ay liggéey yu am xarañ yu ñu ciy def pour que suñu intelligence yi di ko di ko gars yi toog di di di contrôler suñu frontières yi ku fi dugg ku fi duggal ak yooyu mais une fille de vingt ans mënu leen të fan la kii bi nekk fan la xarañteef bi nekk si une fille de vingt ans raconte une histoire boo xam ne débile du dëgg mais mënuma gëm ni suñu suñu gendarmerie bi mënuñoo dem jusqu'au bout pour ñu wax ñu dëgg bi parce que tey jii nii damay dégg ñu naan way ñii ne ah man de damaa yërëm ndaw si aji saar ñii naan damaa def nii mais bu dee su fekkee ni li aji saar jiiñ Ousmane Sonko du dëgg mais man maa njëkk a porté plainte aji saar ben oui majeur la dama koy porte plainte peut-être su ma ko porté nga xam ne ñoo nekk ci ginnaawam comploté yëpp dinañ feeñ bu dee Ousmane Sonko daf ko def weddi ko wala ñu kii ko man tam dama koy porté plainte parce que dama bëgg lii xew ñi quelque que soit fu mu boor bu mu jógee kooku day fay bu dee état bu Sénégal moo nekk ci ginnaaw dans ci histoire bi il faut surtout pas que ñu fàtte affaire bi def ko ci tiroir affaire bi dafa war a leer parce que day tax dara bu xewee da ngay cause yi da nga koy kii nga regle ko si sinon rek da ngay da ngay naafiq il faut qu'on se dise la vérité on na parle plus de du problème le problème il est là oui mu ngi si loxo justice oui mais problème bi li mu créé dafa bëri. Hmm. beneen affaire bi dégg naa ñoom Sophie ak mais man. ci sama ay gët laa ko gisee kenn nettaliwuma ko mais man musuma xam ni et je pense que lii metti na mais am na lu ñu ci jàngat man musuma xalaat ni suñu dëkk bi nii lañu ñu violent we mais musuma ko xalaat j'ai vu I love this country man moi j'aime ce pays là dama bëgg Sénégal man six ans sept ans yi passé ñaari yoon laa tukki makk laa fi dem ak benn yoon Paris bu ma buñ mënee tukki sax damay réew mi rek laa bëgg mais musuma gis que ni sama réew bi nii la amee violence je te jure li gën a graaw mooy que moi j'ai vu des enfants des bamba mais lan la ñuy wax ci loolu man ay xale laa gis sama gët yi laa leen gis dawal naa sama oto une heure du matin romb Auchan bi fii ci Almadies bisu vendredi bii passé une heure du matin gis ay xale yu am 12 ans yore ay kees ma ra ma ralentir ak sama copain bi ma àndaloon wàcc vitre c'est la couche la plus rangée aux oubliettes booy booy jël jël jël jël kees bi ñu yore dóor ñu ko dañu daw mais musuma xam ni Sénégal lii am na fi donc ça veut dire que am na bomb bu nekk ci suuf boo xam ne dañ ko war a génne teg ko ci kaw jàngat ko c'est-à-dire que à à 9 si guddi 10 heures 11 heures pourquoi xale mën a war a mën a génn këram dem def dara te papaam yëgu ko mais est-ce que papaam am nekk na ci condition yoo xam ne tal na ni sax doomam mi ngi fi nekk wala nekku fi donc dafa bëri ay jàngat mais li indi lii moom damay ñaan ngir yàlla ak yonent bi li xew nii il faut que ñu tirer ko au clair. Hmm. bu ñu honnête rek lañ daan wax y'a deux semaines y'a trois semaine ah il faut ñu parce que buñ ko réglé wul. Hmm. moom mooy que état justice ak lépp lu ko wër amatul benn njëriñ ci réew mi. Hmm. donc bu dee dañoo comploter dañu war a exiger la lumière ci affaire bi mm-hmm. affaire bi dafa war a leer mm-hmm. parce que quelqu'un doit payer pour sax mm-hmm. te loolu dañ ko war a accepter dañ ko war a xool dëkk yu mag yëpp bu fa dara amee dañuy dañuy def ay enquêtes moom laa leen si c'est venu de bu doon amoon benn organisation bu nekk si ginnaaw mais ça vient d'une fii de vingt ans qui a benn benn nit mais c' est pas c' est pas du du du du rocket science ah. c' est pas jarul ngay dem planète Mars pour trouver quoi c' est à dire que bu nu waxantee dëgg rek bu nu bëggee dugg gis réew dëgg rek je te jure que moi je suis sûr que mën nañ ko parce que gars yi réglé nañ fi problème enquête nañ fi lu gën a difficile loolu trouver ko mais fàtte nañu affaire bi nañu dem ci jàmm oui kenn kon moo fi bëgg ñun ñii ci xaw nañ ci dee di man nelawuma boobu ba tey. mais malal mii mi ngi kii rek xam naa ni dox na ba tànk yi nag mi ngi óbbali rek mais il faut que Pape Djibril quand même histoire bu mel nii bu amee parce que lu ñuy gën a dem j'ai dafa mel ni j'ai l'impression que ñun fàtte nañu aji Sarr mi accusé Ousmane Sonko bu yol ba ba taal suñu réew mi mhm. ba nar ko taal dañu war a leeral mbir mi parce que bu ñu ko leeralee ba situer responsabilité yi ñu xam lan léegi nag bu ñu situer lool ba pare li nga xam ne moo xew ci réew mi président Macky Sall li nga tey ji nii man dama naan nit yi ah processeur laa bëggoon wax moo mm. boobu di nga ordinateur day am mm. processeur sénégalais dafa dafa war a am processeur ci boppam suñ la bu information ñëwee nga nga analyser ko nga mm. génne ko gis nga ki ngay ki ngay tagg tey moom nga mën a sànni xeer suba mm-hmm. nous tous à chaque fois que bu ñuy élire président bi ñuy président élire président ci 2012 président Macky Sall 62 pour cent lañ ko fal lañ ko fal non contre président 65 65 mm-hmm. pour cent moom laa wax ni ki ngay tey moom nga mën a xalab suba et en Afrique il y a de fortes chances c'est très exceptionnel que nit jël fi nguur ba pare te sànniwuñ la xeer parce que lu tax ñi nga suñu réew yi boo gisee président yi ñu naan comme ay buur lañu gis nga ci constitution bi pouvoir yi président am dëkk yi ci dëkk yi mais dëkk yi ñoo gën a neex gouverner xam nga lu tax fii ngay gis ñu may la ñu ne la ok constitution bi yow yaay yor ministre de la justice yaay yaay yore justice yaay def dara li nga ci mën kenn mënu ko ci mais nga dem ba ci biir loolu ñu la may yëpp bëri na de mais doyu la nga bëgg ci yokk leneen mooy indi lu explosé ñu ne la mandat ñu ne la jox nañ la ñaari mandat te boo seetloo ci biir mandat bi quelle que soit injustice yu si mën a am mooy li gars yi doon wax benn ministre boo xam ne day am dix quatre quatre wala benn benn directeur général wala benn waa joo xam dafa jékki-jékki rek nekk milliardaire mais boo seetloo ba seetloo Sénégalais lu ñu wax dañuy toog rek di ci discuter mais kenn du jël dem porter ko plainte parce que <coughs> pour te mën nga sàcc seen xaalis sax di leen romb nii ñu ñu naan way xoola buuba buuba de fu mu ne nii hmm. saa yi daaw yor woon mais foofu lañ ci yem hmm. pour te dire que ñun dañoo sax nooy parce que dañu nekk di kaas mais bul passé liñ la jox te mu ëpp déjà moom mooy la mu lay wax ni buñ la joxee ñaari mandat toogal si ñaari mandat yi buñ la joxee justice yemal ci déjà bëri na ci justice bi la jox mais yemal ci loolu mais boo bëggee justice boobu ngeen ma jox ngeen ma ko pare léegi dama ci yenn lokk lu leneen lu ci bokk mooy indi lii donc nos pays la en réalité dañuy yomb a gouverner parce que lu ñu mënti wax wéy Sénégal dañu métti fii 23 juin lan moo ko indi mooy yokk ci li nga xam ne moom la la réew mi jox mu lew la nga ne dama ci yokk daal moo indi 23 juin. mbirum bi lii xew ni mbirum justice la justice bi les gens ont l'impression que dafay da à deux à boo xoolee ci ginnaaw ah. Pape Djibril wax na ko fi ku ndóobin rey sa maam boo séenee lu ñuul dawal moo tax acte yi ngay posé tey ah, li ñu naan sa sa jëfi tey mooy sa jëwi ëllëg ji nga tey li ngay jëf jëfaat ko mais bu troisième affaire amee même bu dee dëgg la mais munoo ko fexe ba dugal ci nopp ci nopp nit ñi donc en réalité nos dirigeants là il faut ñu yem ci li ñu leen jox te li leen jox sax déjà dafa bëri dañ ko war a wàññi je pense que loolu moo am solo mais cette histoire là il faut pas quand ñu traverser benn affaire bi parce que boo ko bëggee faj boo bëggee bu bañante met nga koy faj ba mu wér te pour ñu bëggee faj dañuy honnête ñu régler la problème de Adji Sarr Ousmane Sonko ba mu wóor ni fii la responsabilité yi situé wu ñu ñu ñu sanctionné ñooñu pour mën a avancer mais tant que sanctionné wu ñooñu am na ku ñu léser dans cette histoire là. nee na nañu faj góom bi dafa war a leer lu ñuy def mu leer Pape Djibril